ci seen darsu bi di xalqatu riyaadu tafsir ngeen di ci ànd ak ñun ci site bu tedd bi di taalibe point net ñu ngi nuyu ñëpp fu mën a ne ci àdduna di àndaat ak yéen ci darsu bi ñu ngi taxawee woon ci ala innahum humul mufsiduuna walakin laa yashcuruun ورجل دلي أجين تيشي وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن نؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون يلا وإذا قيل لهم وخفنا لهم يلن آمنوا جمجن آمنوا جملن buñ leen waxee na leen gëm leen kama amanakom nikla nit ñooñu ñam ca namm mooy asxaabu nabi saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm leen yàlla comme ni ko saxaaba yonent bi gëmee noonu lañ sàkku ci yéen wu ñu daldi wax ne anu minu ndax danañu gëm kama amana comme ni ki la gëmee assufaha way dese ya ñun ndax danañ gëm comme ni nga xamante ne ni way dese yi noonu lañ gëmee de ñun duñ def loolu de laa nafaaluka fi'lihim duñ jëf mukk comme seeni jëf de ñañ jàpp ne ñooy ñu dese ña ñooñu ñooy ñu mat ñi ñooñu la lislaam soxla parce que ba ñuy wax naan qaalu anu'minu kama amana sufaha sufaha u boobu ñañ na mu mooy saxaaba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yàlla tontul leen boppam na leen ñu dese ñi kay mooy yéen ñii nga xam ne yonent bi dafa ñëw na leen yàllaa ma yónni lim leen di ooye mbir mi leer nañ te mënu leen koo gëm am ñenn ci yéen ñoo xam ne sax dañuy ñëw ci moom ne ko gëm nañ la yàllaa la yónni wax nga dëgg waaye bu ngeen delloo ci seeni nawle waxaat ñooña ne leen ñun yéen lañ ànd ak ñun àndaguñ ànduñ ak yonantu bi alayhi salaatu wasalaam yàlla na alaa dama ne innahum naka ñoom hum ñoom as u ñooy ñooy ñu dese ñi bu ñuy xool koo xam ne kay dafa dese wérut dëgg-dëgg yéen rek lañ ko mën a ooyee walakin waaye li fi nekk laa yaalamuuna yéen wéru leen yéen matu leen te xamu leen na matu leen laa yaalamuuna xamu leen na yéen ñu deseti ngeen xamu leen na yéen da ngeen a dese xamu leen na yéen ñu manqué ngeen xamu leen na yéen amu leen xel wa ida laqu ndem daje na alladina gaa ñi nga xam ne amanoo gëm nañ bu ngeen dajeeg ñi nga xam ne gëm nañ yàlla xaalu ngeen wax ne aman naa ñun de gëm nañ yàlla loolu mooy ju koy naa feq ko xamne du far fi du far fele lolu jukku ju l'islam bañ la jukku ju diine tere la jukku ju yonent bi alayhi salatu wassalam wax ci wax ju bari di tekk kep ko xamne da nga yor jukko yooyu ku nek ya gëna xam ni sa bop ku yalla def nak yow sa mbiri aduna lepp sa pass passu diine wérul bo démé ci ñi nga xamne gëmuñ yalla nga fësal fa ne yow gëmo yalla bo ñëwé ci ñi gëm yalla nga ne gëm nga yalla jukko ji képp kum ne ci yow rek am naa feq nga waaye ba tey tamit képp koo xam ne itam gis nga ne li ngay wax ak li ngay jëf wuute na jarut sax ngay laaj nit ñi yow la kan na nga teel lim sa bopp rek na naa feq nga kon jullit piir mooy koo xam ay waxam ak ay jëfam dañuy dëppoo ndax jëf mooy dëggal làmmiñ la waykat ba doon wax wal fi'lu misdaaqul lisaani wa innama qawlun bila amal loolu hadaa un musannadu mu ne jëf mooy dëggal làmmiñ kon nit kii lépp lu làmmiñam wax na fexe ba jëfam na ko dëggal bul wax ne danaa def te defoo sa jëf mayewut ko danaa joxe sa jëf mayewut ko loolu yépp sa wax ak sa jëf wuute na kon yaa ngi eh, fenloo rekk sa bopp te itam ju koy naafeq la ndax alquran ba alquran jeex aaya yi suratul baqara njëkk di misaal di jàngale mi ngi ñuy jàngal foofu melokaanu naafeq ni mel buñ ñëwee ci jullit ñi na leen gëm nañ yàlla comme ni ngeen ko gëmee bu buñ demee ci seeni moromi nawle ay naafeq na leen ñun day gëmuñ li gaa yi gëm li ngeen gëm lañ gëm yàlla wax na ca sóoratu nisaa ne mudabdabiina bayna zalik laa ilaa haulaay wala ilaa haulaay ñoom dañuy déng-déng rek nekk ci diggante bi di déng-déng mënuñ leen a boole ci jullit mi mënuñ leen a boole ci naafeq yi te alquran wax na ëllëg palaasu naafiq fan lay doon yàlla nee na innal munaafiqiina fi darakil asfali min annaari walan tajida lahum nasira naafiq yi yàllaa ngi leen prépareel ca taatu safara benn xur woo xam ne ku dut naafiq doo fa egg tàngaa tàngoor wa fa ne ak xeetu mbugal ya fa ne yàlla nañu ci yàlla musal waaye loola lu doy waar la te yàlla nee na denc lu ma ko kenn lu dut naafiq yi nga xam ne seen ab dund lépp wala benn yoon sax jaar nañ ci ci ak nafiq nifaq goku dana len yóbbu ci darkul asfali min annaari walan tajid lahum nasira wa idha khalaw buñ delloo ila shayatinihim jëm ci sen njiit ya qalu dañuy wax ne inna naka ñun maakum ànd nañu ngeen ànd nañu yend buñ dajé ak julit ñi na len ñun aman gëm nañ fofu jumlaay fi'il lañ andi jumlaay fi'il lañ indi hada axafu taabiran buñ delloo ci seen njiit ya na leen inna maakum foofu jumlaay isim lañ indi loolu doyut ñu indi waat dégg nga ñu indi taw ñu indi kiit boo xam ne dafa ñëw di feddale seen la ñuy wax kon nga gis ne bañ waxee jullit ñi ne leen ñun dey aman naa gëm nañ jumlaay fi'il lañ fa indi te arab nee na jumlaay fiil hada axafu taabiran jumla la jumla lay nekk joo xam ne wax ji du dëgër këcc waaye jumla bu ñëwee ci jumlaay isim wax ja dana dëgër loolu doyut ñu dolli wàcce inna boo xam ne tawkiit la loolu yëpp day wane ne kon ñoom imaan bi ñuy jéem a fësal loola dañ koo téye téye bu oyof jaralu leen dara jàppewuñu lislaam dara waaye nag fësal ga ñuy fësal na ñun ay naafeq lañ na ñun gëmuñ yàlla gëmuñ yonant bi yàlla jàppee leen ay naafeq loola dañ koo téye ci anam boo xam ne bu dëgër la ndax jumlaay isim lañ fa indi loolu doyut ñu indi inna mu nekk tawkiit boo xam ne day gën a dëgëral ca lañ nekk yàlla ne innama nahnu na ko ñun musta ñoom ñu ne innama nahnu na ko ñun mustaziuna way sayita leen ñoom daal ña ngay feeñal seen a ngëm allahu yàlla yastahzi'u dana mu séyite biim ci ñoom de nga gis alxuraan balaaxa bi ci ne ndax ñoom bañ waxee na innama nahnu mustahzi'un bu buleen fàtte ne ismu faa'il lañ indi te ismu faa'il arab bu ko waxee ci biir waxam mooy wax joo xam ne am na commencement am na fu mu yem donte nag ñenn ci bulaxaaw yi tamit ku mel ni ibnu asfuur ku mel ni sakaaki yi wax nañ ne ismu faayil mën naa ñëw détecté tegtale loo xam ne ëbët la waaye bu amee yi tamit lu jaad xiyaas la teguwul ci xiyaas ndax ismu faayil ir bu ko yàlla waxee rek wax ja day am commencement am fu mu yem waaye ba ñu waxee ne innama nahnu naka ñun mustahziuna way sayita lañ ismu faayil lañ jeexalee seen wax yàlla ba mu leen di tontu dafa indi jumlay mudaari'u te mudaari'u li ajli istimraaril kalam min al qaafilil qaf dafay continuer wax continuer boo xam ne yàlla rek a xam wax ji fa muy commencé ak fa muy yem yàlla na leen allahu yàlla yastahzi'u dana mu sayite bihim ci ñoom yàlla moo leen fayee bi nga xamee yéen a ngi saboote yonent bi di ko ñàkkal fayda ba wax ne innama nahnu na yàlla na leen man yàlla danaa leen fayee seen seen ak saboote gi ngeen di defal yonent bi am na fu muy commencé am na fu muy yem waaye bi leen di yàlla di sabooteel boppam du am kum am bu amee commencement itam amul fu mu yem allahu yàlla yastahzi'u bihim de wa yamudduhum dana mu leen tëbb moom yàlla de fii tuxyaanihim ci seen ak mbewte yàlla dana leen fiite muñal leen ci seen ak mbewte bàyyi leen ci ba ngeen jéggi ci dayo de ya'mahuna ngeen di gëlëm loolu day am nit day nekk ci lu bon nga gis ko mbiram mel ni luy baax ba yow boo xamul li xew sax dangay foog ne lim nekk nii mooy dëgg ndax mbiram ma ngay continuer di dem yàlla day def loolu nit ki danay ne ci loo xam ne du dëgg nit ki dana ne ci loo xam ne teguwut ci xam-xam nit ki dana nekk ci loo xam ne nii lépp ak jubadi la mu ne ci rek yàlla di ko suturaal ba ko ca di ko tëkku rek naan ko moytul muy continuer di sax di def mu ngi mel ni rek ki nga xam ne dafa defal dafa jël fiit def ci néegam di fiitu ay janax janax ya bañ ñëwee fekk ca kees ga ñu defal leen fa lekk bu doy defal leen fa ndox ndox mi dañ koo posone lekk gi dañ koo posone kees gi ñu war a jaar ñëw ci ñëw ci lekk mi ñëw ci lekk geeg naan gi dañ koo def kol boo xam ne bu ca seen tànk yi tegoo deetu dem janax ji bu ñëwee nag gis kees gi ñu lalal ko ko mu gis lekk ga ak naan nga lépp doy mu wax ci xolam ne kiyee mën a def kiyee mën a defal teraanga dëgg dëgg bu xamoon li ko waaj di pareel du fa jege kon itam képp ku ne ci xeetu mooy yàlla ak bu mu mën a doon di gis ne sa mbir a ngi gën di baax sa mbir a ngi gën di ubbeeku del bàyyi xel sa bopp ne boo xamoon palaa bi lalalal lalal da gën a moytu sa bopp ba lii nga nekk nii doo ci nekk yàlla ne ulaayika naka gaa yooyu ladina mooy ña nga xam ne taraw dañoo jëndee addalaalata réer bil hudaa ci njub dañoo jëndee réer dañoo jël njub remplacer ko réer de fama xat xam nga commerçant bi bu jëlee xaalisam di jënd dara lam bëgg mooy li ma jënd nii li may am na ëpp li ma am li dégg li ma fere li ma ciy gañe na ëpp li ma ci fere woon amul benn commerce boo xam ne danga ca toog continuer di ko def te yow sa capital bi nga xamee ne loolu nga financé woon ci téeméer la toll bénéfice bi ngay am di wàññeeku ba juróom fukk loolu mënta nekk commerce bu ñu koy wax mooy da ngay def ñaar fukk di fa séentu téeméer wala nga def juróom di séentu ñaar fukk alquran itam ba mu leen di wax na leen da ngeen a jël njub wëteeku réer yéen a ngi mel ni kuy commerce te lam nekk du ci am bénéfice te capital ba mu commencé woon ak ay mbiram bët bu set muy yëg ne mbir maa ngi dellu gannaaw commerce moomu du gudd fan yàlla na leen fama rabihat bénéfice wut tijaaratuhum seen ak yaxantu ñoom amuñ ci benn ak bénéfice de kon perte nañ de bal xasiru li masirihim ila naar perte nañ ndax ñoom ñii ñépp seen ak mujj safara la de wa maa nekkuñu te nekkuñ woon muhtadiina di way gindeeku de duñ gindeeku mukk da dégg nga ko de mathaluhum yàlla jëlaat na foofu beneen misaal di jàngale ci beneen anam naafeq yi la yàlla di misaal ci aaye ji ñuy dugg seen melokaan la yàlla di jël di ko jàngale seen melokaan la yàlla di jël di ko jàngale yàlla ne masaluhum seenam misaal ñoom naa feq yi seenam melo ka masali ladi comme melow ka nga xam ne comme misaalu ka nga xam ne istawqada sàkkoo naa taal naaran safara seenam misaal daal su ma la koy jàngal ci lu gàtt te neex a dégg comme misaalu koo xam ne dafa taal safara ba safara ci tàkk falamma adaa at ba nga xamee leer na falamma adaa at ba nga xamee na leeral na maa dégg nga safara sa baam leeralee maa xawlawu la ko wër zahaba demal na allahu yàlla bi nuurihim ci seen ak leer wa tarakahum mu bàyyi leen fi zulumaatin ci ay lëndëm laa yubsiruuna duñ gis de misaal mi yàlla joxe mu laaj dégg-dégg dafa wax ne ñoo xam ne dañoo newoon ci ak lëndëm ñu gis ku taal làmp taal safara su yaatu ci àll bi ba safara ci tàkkee ba li wër àll bi lépp tàkk lépp leer gaa yi nag commencé seeni bët di gis fa ñuy dox ñu dem ba ci kanam rekk yàlla fay tàkkaayu safara sa yóbbu leer ga kenn ku ne ci ñoom fa nga taxaw mënoo faa déplacer. ndax leer gi la doon niital dem na amatoo fenn foo mën a jaar ba xam fi ngay teg sa tànk ndax zahaballahu bi nuurihim yàlla demal na seen ak leer ba pare moom yàlla itam bàyyi na leen fa ci lëndëm goo xam ne laa yubsiruuna gaa yi daal duñ gis dara ci lu ñuy def dégg duñ gis de yàlla def leen mu maa xawlahum mutaxayiriin ani tariqi xaayifiin ndax dañoo mujj gëlëm ba xamuñ fu ñuy jaar ñu mujj ragal ca lañ newoon de ñooñu mooy gaa yi nga xam ne dañoo gëmoon feeñal dañoo amoon ak ngëm-ngëm feeñal kàddu imaan ba nga xamee na dee nañ ak ragal dikkal leen ak mbugal de su mun yàlla ne ñoom day woy tëx lañ ba su mun anil xaq falaa yasmaunahu simaaun qabul an munoo wax mukk yow yonent bi benn wax boo xam ne nii bu leen di jariñ la wala bu leen di fegal lor ba tax ñu déglu la duñ la dégg mukk dëgg duñ ko dégg ku fatt ay noppam ngay wax mu ne la bëggumaa dégg li ngay wax kooku wax ji jarut muy bari ndax li nga bëgg ci moom doo ko am ki neex a waxat kii nga xam ne ñu ngi koy yaakaaral mooy koo xam ne yaa ngi koy waar te li ngay wax yépp du nanguwut waaye fattut ay noppam mi ngi lay dégg kooku heure bu ne mën nañ koo ñaanal yàlla yàlla defal ko taw tawfiix mu dégg waaye ki pare rek nga commencé wax mu fatt ay noppam ngay pratiquer ci kanamam mu gëmm ay bëtam ba kooku amatoo nenn noo ko mën a ñaanale yàlla ne ko yàlla la yàlla dimbale ba nga gindee ko amatul ndax bépp yoon bu ñuy xaw a yaakaar ne lii nit mën na cee jaaree am liñ bëgg fii nit mën na cee jaaree fekk si yàlla ci yoon wi mu soxla bunt yooyu yëpp daf koo tëjal boppam kon bu ñu ko ñaaneele yàlla itam ñu ngi ñaan loo xam ne mënta nekk su mun way tëx lañ ci dëgg bukk mun way muuma lañ duñ wax mukk dëgg lépp luy niru dëgg rek muuma nañ ca ba duñ wax jàmm de dégg ko moom yun way silmaxa lañ mooy way gumba lañ ba yoonu njub bugguñ koo xool de fahum ñoom laa yar na duñ dellu mukk ci ak dégg ko wëlis ak cànkute de ak cànkute ak réer moo leen gënal luñ mën a am de lu dul réer amuñ ci soxla de aw ka sayibin wala nga jël misaalam jox naa la misaal mu njëkk wala na la koo xam ne dafa gëmoon yàlla dégg te lim koo xamante ne nii misaalam naa fekk la yor yàlla njëkk koo misaal ci laay jiñ paase mu ne mooy mi ngi mel ni koo xam ne dafa taal safara ci àll bi lëndëm mu taalee safara safara si leeral nañ àll bi ñëpp di commencé gis fañ doon jaar ñu dem ba ci kanam rek yàlla yóbbu leeruk safara sa kenn ci ñoom xamatut foo jëm de boobu benn la ci misaal ya aw wala nga jël bii misaal ka sayyibin dafa mel ni niir mina samaa yi bu bàyyeekoo ci wàlluk asamaan de wala ñoom naa fekk seen misaal dafa mel ni niir bu bàyyeekoo ci wàlluk asamaan de fii nekk na ci niir wa zulumaatun ay lëndëm de am na ay lëndëm yu ca ne niir wu bàyyi niir mooy asamaan si buy taw li ngeen di seen muy indi ndox mi loolu mooy niir de waaw ñu toogoon ba mu yàgg ñu gis aw niir wu bàyyeekoo ci asamaan di ñëw ànd ak ay lëndëm wa dégg ko fii zulumaatun wa raadun ànd ak dënnu wa barqun ànd ak melax yajaaluuna ñoom daña ngay def ñoom naa feq yi asaabiahum seeni baaraam fii aadaanihim ci seeni nopp mina sawaayaqi ngir kàddu dënn ya niiru asamaan saa ngi sotti ndox bu ànd ak niir wu tar nekk na ca biir niir wa ay lëndëm nekk ca itam melax nekk ca itam dënnu ñu daldi jël seeni bët gëmm jël seeni noppu fatt kon melax ya duñ ko gis dënn yi itamit duñ ko dégg yàlla ko mën a jàngale la yàlla ku mën a jàngale la ndax naafeq yi alxuraan ba nga xamante ne nii wàcc na yàlla tudd li ñuy tuddee yàlla tudd ci kéeféer def fa li ñuy tuddee mu shabbah mu nirule lëndëm lëndëm ya mu nirule ko ak kéeféer aji takku ji mu nirule ko ak dënn yi lay yu leer yi alxuraan indi yàlla jël ko nirule ko ak melax ya ndax yéen a ko jàng sànq ci aaya ji aw ka bin min asamaai fiihi zulumaatun wa raadu kon nag ñoom seen ak lënt ak jubadi gi nekkee la yàlla jël loolu nirule ko ak lëndëm lëndëm yi mu wax ne fiihi zulumaatu fiihi zulumaatu dégg nga ko de waaye aji tëkku ja te mooy yàlla mbiram ni mu amee doole te bu yëngatoo ñu xam ko yàlla jël loolu nirule ko ak dënn yu mag yi ngeen xam ne yéen a ngi koy dégg buy taw de lay yu leer yi yàlla wax alquran indi ko yonent bi leeral ko ba mu leer yàlla nirule ko ak melax yàlla ji buy taw melax yi bu dóoree dafay leer naññ alquran léppam dafa leer de waaye ñoom nag ki neex a waxal mooy koo xam ne li ngay wax pare na koo dégg yàlla ne dañoo jël seeni baaraam fatt seeni nopp asamaan saa ngi taw ndox maa ngi wàcc ñu jël seeni baaraam fatt lu tax ñu ne bëgguñoo déglu bu dënnoo dënnu ya bëgguñ koo dégg ñaareel ba itam ñu gëmmu seeni bët lu tax bu melexee bëgguñ koo gis kon kii kon ki ana fan ngay jaar ba yaakaaral ko ne dana daje am tawféex ba mën a dugg ci liñ koy woo yàllaa ngi noonu de wallaahu yàlla muxitun aji peeg la bil kaafirina ci kéeféer de yàlla day aji peeg la seen mbir de xam na leen xam na seen kattan xam na seen lépp dara ci ñoom mun tër ci yàlla de yakaadu dana mu xaw albarqu melax yakaadu dana mu xaw albarqu melax yaxtafu di këf abu saarawum seeni gis de dégg ko nga xam ne melax yi day ñëw rek bu na xuy rek sa bët yi mel ni dafa gisoon dara nga gis ne fii yoon la waaye bu melax bi jàllee rek di toqamati fooy teg sa tànk kullama adaa waxtu wu leeralee law ñeel leen machaw ñu dox fii ci moom de heure buñ gisee leer daldi séq ñaari paa bu leer leer ak melax du fa yàgg de bu leer gi demee ñu taxawaat wa isa aslama bu lëndëmee alayhim ci ñoom xaamu ñu taxaw de ndax taxaw nañ ngir ne dañoo diingat alquranul karim alquran indi ay lay yu leer naññ ñi won ginnaaw layam ya bëgguñ koo déglu de yonent bi ñëw yàlla yónni ko ñi won ko ginnaaw mënuñ koo dëggal de mënuñ koo dëggal ñuy bëgg àdduna ak lépp lu niru àdduna jël yàlla ak lépp lu ko jege won ko ginnaaw lii mooy jukkooy naa feq de moo tax dégg yonent bi sallallahu alayhi wa ba nga xamee gis na borom jaasi muy wuutee ak moom yonent bi xeex ak moom rey ko xisaam danañ ci ñëw ca kanam dégg nga fekk du wut ne ci loxol yonent bi alayhi salaatu salaam ci la génne àdduna ndax yonent bi loxoom bi li muy foor foor dëgg dëgg ku yonent bi rey kenn gënu laa texee yi ndax yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama kooku mooy jëmmi leer mooy jëmmi yërmande te yonent bi dundam bi yépp benn nit kese la rey danañ ñëw ak yéen ci xisaam ci fan yi di ñëw waaye yonent bi dafa yónni saxaabaam yi ci ab dëkk am koo xam ne dafa bëri woon alal lool mu gis ne saxaaba yi di ñëw buñ yégee ne gëw yàlla mën nañ maa rey jël sama alal ba saxaaba yi jege rekk mu ne ashadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kenn ci ñoom daldi ko rey yonent bi ba mu yëgee xissa boobu daf na leen lu tax ngeen rey ko ñu ne ko mu ngi wax loo xam ne gëmu ko yonent bi laajte ndax dangeen a xotti xolom bi ba xam ci lim nekk kon mbiram naa feq itam dangeen ngeen ci déggee ne lu doy waar la li muy wax doonte gëmu ko itam bu xasee seede na amul benn buur bu ñu war a jàmm ku dul yàlla yonent bi yàllaa ko yónni amatoo duraa rey ko moo xam li mu wax gëm na ko moo xam li mu wax gëmu ko waaye yàlla moom àttaloowut ñu ay baatin zahir lañ ma lii la waxut baatin yu bàyyee ko yàlla mi nga xam ne léppam ci loxo la nekk dégg nga de walaw shaa allahu bu neexoon yàlla la zahaba mu demal bi samihim seen ak dégg de yàlla mu ne man la neex rek bu ma neexoon bañ nekkee ci seen ak lëndëm ma demal seen ak dégg ba duñ dégg bu ma neexoon bañ nee ci àll bu lëndëm bu meloxee ñu xaw a gis xam fi ñuy jaar bu ma neexoon ma yóbbu seen ak bët ba kenn ci ñoom du mën a gis ba xam fi muy war a dem wa absaarihim ak seeni gis-gis inna allah naka yàlla ala kulli shay'in bépp mbir xadirun aji man la ko de yàlla mbir mbir mu nekk rek moom yàlla mën na ko de yàlla saxal na fii melokaanu jullit ñi ci aay yi njàngoon ci gannaaw yàlla saxalaat melokaanu kéeféer saxal melokaanu naafeq alquran commencé ci faatiha fatiha nekk saar woo xam ne la ca yàlla jàngale yépp tënkaat na li nekk ci kaamil bi waxoon nañ leen ko yàlla commencé ci saari suratul baqara commencement ba mu def nirule goo xam ne nit ki lum jekku arab jekkul arab bu jàngut du ko xam te mooy alif laam miim ñetti xaraf rekk la waaye xaraf yi mooy li gën a diis mbir mu diis la ci arab bu fekkee nga xam ne jànguñ ko mbir mu diis la ci arab ndax li annahum ma fahimu an mimma tadammana ñoom bu fekkee nga xam ne dégguñ dara ci li arab làmboo pour ñu dégg alif lam mim luy jafe lay doon ci ñoom ànd ak nag xam nañ ne alxuraan ci langue arab la wàcc arab yi yàlla doon wax ak muy waa màkk yépp dañoo amoon fasaaxatu am balaaxatu ak xam ixbaa dégg nga xam xabar yi xëy yi xibaar yi fàddu yeeg yu teew yépp ñu xam ko waaye nag lakinnahum yafhamuunahu hum arabun dégg nañu alquran parce que arab lañ te alquran ci luxatul arabiya ci la wàcc alquran heure boo xamante ne ni dikk na dikkee na yi la xaraf ci commencement wu saar fofa da ngay gis ne seen ak dégg arab seen ak fasaxatu seen ak balaaxatu balaaxatu da leen di mujj di réer yàlla am na fu mu wax ne alif laam mim am fu mu waxaat ne alif laam mim ra am fu mu waxaat ne alif laam mim saad am fu mu waxaat ne xaamiim xaamiim ayn sin qaf kaaf haa yaa ayn saad yii yëpp ay xaraf lañ yoo xam ne loo dégg arab dégg arab buñ la firilut araf ya munoo xam ne lii nii lii rek lay tegtale kon kaweeg balaaxatoog kaweeg fasaxatoog kaweeg bëri culture bu la yàlla jox du tere alquran loo dégg-dégg yang langue arabe dana am ci tënki alquran loo xam ne buñ la ko waxalut loola mënoo koo fexe mukk ba daal di ko xam ay xutab ñëw na fi yoo xam ne nii ay xutba yi héeme la ndax yonent bi daan na wax ne asdaqu kalimatin qaalaha al arabu kalimatu labit kàddu gi nga xam ne mooy kàddu gi gën a dëggu te arab waxoon ko mu des fi di doon dëgg di am njariñ mooy li imaamu labid waxoon waxam jane ala kulla shay'in maa xala llaahu baatila dama ne lépp bépp mbir lu duwut yàlla rek loola neen la yonent bi xool na wax ja ndeysaan ne wax jii de ki ko wax moo ñu fi jiitu waaye li wax nii dara mënatu ko changé kon loolu yooyu bari na yum ñëw ci ay xeetu xutba ay xeetu shiar way yoo xam ne ba ko yonent bi gisee da koo rafetlu na dëgg-dëgg lii daal kenn gisut lu gën a rafet lii te yépp ñu leen di wax su ngeen demee ca tafsir imaam suyuti ci tafsirul jalaalayni da ngeen ko ca fekk mu def ca leeral yoo xam ne leeral yu yaatu la dégg nga de kon nag alxuraan a ngi noon yàlla tudd na itam melokaanu jullit ñi melal leen ci gën caa rafet ci melo de ak taqwaa ragal yàlla yàlla melal na ko de ak i ngëm yàlla ci xëy bu ak saxal julli dundale ci li yàlla jox de yooyu jàng nañ ko de aqimi salaata boobu mu ngi ci suratul baqara ci commencement ba dégg nga ko de kon yëpp yuñ jàngale de yàlla wax ne yàlla digal ne ñuy joxe julli ci mbooloo ana fu alquran wax loolu yàlla nee na warka'u ma'a raaki'iina julli leen ànd ak way julli yi loolu na mut ci benn nit kon nag kon nag def leen julli mbooloo yàlla digal nañu julli ñi di ko joxe ci waxtu wa bu jotee rek foofu itam alquran nee na inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban mawquutaa de waaw julli ci jullit ñi dégg nga waxtu julli ci jullit ñi daal nekk na ci téere maanaam defal nañ ko waxtu woo xam ne waxtu wuñ waxtu la bam leer yàlla digal nañu ci julli ñuy toroxlu de qad aflaha al mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'una yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak kep ku ko top yàlla digal nañu loolu de yàlla nañ yàlla boole ci ñoon de kon nak na ngeen temmu ci ay ndiglem ta ngeen taxawal julli mbolo def julli juróom yep mbolo de na ngeen toroxlu ci biir julli de yàlla tuduna seen ak mucc kep kuy toroxlu ci biir julli di teewlu yàlla ci li ngay def sa mucc yàlla wax na ko yàlla nee na ulaayika naka gaay yooyu humul waarisuuna alladina yarisuuna alfirdaws hum fiha xaaliduuna ñooñu foofu mooy doon seen tàppuwaay ëllëg de abu jahal ak képp ku niru abu jahal nga xam ne rafadu hadihi l awamir ndigle yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle yépp dañ koo dajji li mu wax lépp ñu udee nga ko diingat ko ñooñu alquran tudd na seen mujj de yàlla wax na ca suratul qiyaamati ne falaa saddaqa wala salla walakin kadaba wa tawalla aayaat yi yépp ci abu jahl la wàcc de yàlla tudd na seen mujj seen mujj mooy maa salakakum fii saqar ana lan moo leen dugal ci biir sa saqar ñu tontu ne xaalu ñu wax ne ñun dey lam ku nekkuñu woon minal a bokk ci jullikat yi de yàlla waxaan na ci beneen aaya ne fa xalafa min baadihim xalfun adaaxu salaata de wuutal nañ seen gannaaw kuutlaay kuutaay yoo xam ne ñoom adaaw dañoo sànq asalaata julli wa tabaxu ñu topp shawaati bànneexi ñoo xam ne dañoo sànq julli topp bànneex kon loolu lu mat a baqel yàlla ne seen mujj fan la fa saw fa yulqawna gayyan xeles nañ leen a sànni ci xurum mbewte woo xam ne seen ak tàpp du safara yëpp su ngeen ko jàngee te teewlu ko dangeen xam ne doomu aadama daal kon dara waru ko rek lu dul jaamu yàlla waaye jaamu yàlla li ci yàlla jiital mooy julli kon nag nañ fonk julli defee ko nam ko bëggee te bañ koo defee niñ ko bëggee julli mbooloo gën na jullit kenn yonent bi nee na eh, salaatul fasdi salaatul jamaati afdalu min salaatil fasdi bi sab'in wa ishrina daraja jullit mbooloo gën na julli kenn ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar kon nag yi yëpp ay màndarga la yuy wane rek ne ku bëgg lu baax bëgg diine juñ nangu jullit yu tegul ci yoon na nga fonk julli te defee ko ni ko yonent bi waxee yàlla dëggal ko te bañ koo defee comme yow ni nga ko bëggee ñi ngi yam ak yéen foofu ci darsu tey bi yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp defal ñu tawfiq ak taysiir nangu ñu sunu jaamu in uridu ila al islaaha ma statatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته